sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV wali say bi ahadun yàpp xiran an nasuunahu salaamaaleykum mbokk canaba ak tund bi yépp man la seen mbokk euh, docteur njon nekk ICP poste santé bu Thiénaba euh, ginnaaw bu ñu nuyoo kilifa dëkk bi Baye Assane Seck Euh, jaarale nuyo bi ci sous-préfet bu ba ak le maire de ba du nuyu tamit bépp kilifa diina boo xam ne ne mu ngi yeewoo fii ci ba ak tund bi yëpp euh, tey nag dañoo ñëwoon pour euh, yégal leen rek comme que ñu ñoo teewal fii wàllu santé ci commune bi yégal leen benn activité bi nga xam ne dañ ko bëgg a tàmbali incha allah suba mu nar a nekk ci juróomi fan donc mu nar tàmbali suba ba altine euh, activité boobu nag nekkul lenn lu dul euh, dugg ci gox goxaan yi euh, ak relais yi pour saytu feebar yi nga xam ne ne dañ daan am habitude di joxe ay doom ci dëkk bi pour feebar yooyu muy feebari sànn yi nga xam ne ne dañ daan joxe doom yi souvent ci école yeeg ci gox goxaan yi ci quartier yi ci village yi ci daara yi muy feebar bi ñuy wax ci tubaab euh, filariose lymphatique ñu koy wax ci olof euh, tànku ñey ak xuuxaan feebar yooyu nag ni may waxee ak yéen ñii dina am ay image yoo xam ne dina jàlle ci seenu Thiénaba TV ngeen koy gisaale en même temps ci kàddu yu may jàlleel mu nekk image yoo xam ne ne bu ngeen ko gisee dina doy waar lool ku ko gis di nga laajte lii lan la Euh, mu nekk ay complications yu doy yu metti yu tiis yoo xam ne dañ koy gis ci askan bi moo tax tey ñu bëgg a dugg ci askan bi xool ñi nga xam ne ne feebar boobu dal na leen pour que relais yi enregistré leen ñu man leen jàppale pour faj leen donc loolu dañ koy def ci juróomi fan ñu ngi koy tàmbalee suba incha allah ngeen yaatal bunt yi. dina am relais yoo xam ne ñooy dugg ci kër yi di saytu ñi nga xam ne dañoo am feebar yooyu ma lim sànq muy xuuxaan ak tànku ñay feebar yi nag yu tiis la yoo xam ne ne ku ko am si njaaxartis ngay nekk sa njaboot si jaaxle la ñuy nekk parce que doo mënati liggéey doo mën a toppatoo sa njaboot boo leen xoolee image yi di ngeen gis li ma leen di wax donc ngeen yaatal bunt yi rek pour que relais yi bàjjeni gox yi bu ñu ñëwee ngeen man leen nangu liggéey boobu xam ne dañ koy def ci biir askan bi pour jàppale ñi nga xam ne dañu am tiis ci feebar bii may wax ñu man leen a bind ci liste yi bu ko defee waxtu paj bu jotee ñu mën leen na faj gratuitement parce que feebar la yoo xam ne dëgg sa yàlla wax naa ko sànq feebar yu metti la daf lay handicapé doo mën doo nangoo génne doo nangoo eh, déplacé wu da nga ko dul sax man ba koy def donc loolu daal mooy li nga xam ne ne lañu buggoon jàllale si Thiénaba TV nga xam ne ne bu subaa ak ñeenti fan yi ciy topp ñu ibbi bunt yi yombal liggéey bi relais yi ku ci gis wala ku ci am xam koo xam ne ne am na feebar yooyu ñu yombalal ñu loolu pour ko ñu mën a waxtaan ak moom ci njekk bu ko defee ñu mën ko jàppale pour feebar boobu nga xam ne ne moo nekk ak moom ñu mën ko jàppale ba faj ko te du fay dara donc loolu daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne ne moom lañ doon yëgle pour askanu Thiénaba yëpp ak kilifa diine yëpp ñu mën ko xam mu nekk loo xam ne ne jarul nëbb parce que feebar la yàllaa koy def ci doomu aadama ñu mën ko jàppale ba faj ko te du fay dara ñu ngi leen di jaajëfal di remercier euh, Thiénaba TV ci occasion bi mu ñu may pour ñu mën a yëgal askan bi li nga xam ne ne moom mooy campagne Euh, de recherche de perte de vue yooyu campagne de recensement yi nga xam ne ne moom la ñuy dégmal suba muy dem fii ba altine jërë ngeen jëf ñu ngi. sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak. canaba ci wali say bi ahadun yab xëy an nasuunahu